Euh, bisimilah barke borom Touba mbokk yi safoo di ànd ak euh, guy mbind ba tey rek euh, ñu niñ leen ko waxee woon fii ci Touba Abidjan bu ngeen gisee suñ jotaay bi tamit ak jëmm ji ñu toogal muy jëwriñ Serigne Ousseynou Diaw di kenn tamit ci liggéeykat yi Serigne yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Abidjan di di di dox ci xaside yi. Euh, te ñoom it ñuy dundal bisu xasida kon euh, sëñ Ousseynou euh, ñu bëggoon rek nga baaxee ñu dara ci xasida yi ak njëriñu bisub xasida yéen ñi nga xam ne yéen a ngi def te di ko dund ak sama classe gi ana yan soññi ngeen leen mën a soññ ci biir ci xasida yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Daam ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax. gannaaw ba nuyu ñaanalee Serigne Touba Serigne Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg lu tànd ak wér barke Serigne Seye Jëm Fall nekk noonu di ñaanal Serigne Seye Jëm yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér barke Serigne Touba Serigne Mountakha di ñaanal Serigne Touba Serigne euh, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke suñu borom yokk ay leeram taaf ñu ci barkeem di leen ziare bu baax sëñ daam di lu liggéey bi nga xam ne si def ngeen ko euh, bàyyi ko fii ba Touba Sénégal ñëw fii lépp ngir jëmmi liggéeyal Serigne Touba di leen ñaanal tànk yi wi ngeen jóge ba fii rek yàlla na leen Ahmadou Faye di wax ne maanaam fii moom ñi euh, gaa yi wax dëgg fi yàlla Euh, gaa yu baax lañ ñu ngi góorgóorlu ci xasida yu baax te jàpp naa ne ab murit moom fu mu nekk fu ne rek daa war a dundal euh, liggéey bu baax a baax a baax a baax mu mel ne ne maanaam euh, comme ni koy sëñ Isaax Mbàkke di ko faral di waxee rek mooy ne maanaam suñ jëmm yi kenn ku nekk na nga jàpp sa morom ne jëmmi Sëriñ Tuubaa ndax loolu mooy mooy mooy mooy tax maanaam ñu gën a mën a xam sëriñ bi ndax yi maanaam Ah, ci ci lañ ñi nga xam si yàlla dogal na ñu fekk si leen fii sëñ bi ci ñun lay jaarale ñu mën a xam jëmmi ah, maanaam sëñ bi kon nag ah, di ñaan yàlla rek yàlla nañu sëñ bi gën a yokkal suñu pas-pas ci xasida yi di wax ne dañoo amul sëñ daal dañoo amul lu dul xasida ndax xasida daa doon lu yéeme ndax itam maanaam yéeme na daal yéeme na ndax loo xam ne si da lay defal loola jomb loo xam ne si maanaam say waajur wala kenn du lenn lu la kenn ku mënalul ko lu dul xasida ndax de yàlla dogal na ñun moom kiiwuñu ci xasida lool waaye war nañu ay mbir yoo xam ne si maanaam sant nañ ci Ahmadou bu baax a baax a baax a baax di eh, wax ne maanaam eh, rafetlu nañ eh, kii bi lool waxat rafetlu nañ lii lool waa ah, rafetlu nañ lii lool tànk yi ngeen jugee foofu daal ba fii yàlla leen ko Ahmadou Faye di wax ne di ko tàmbalee sama maas gi ñu gën a góorgóorluwaat ci xasida yi ndax ki nga xam ne si yàlla dogal na moo fi toogal ak Serigne Touba moom moom jëmmale joo xam ne si firndeel na xasida yi rek maanaam mooy liggéey bi maanaam buñ ko kiyee rek lu ci bari day day day ah, day day day ñëw daal ba ci maanaam ah, maanaam lu ci bari daal loo xam ne si maanaam bëgg-bëgg sëriñ bi rek ci la ñuy mën a nekk ndax dana yaakaar naa suma ma jumoon nee na yi mooy tànkam te yaakaar naa ay tànk koy topp te ah, bàyyiwoo bu yàggee da gis jëmm wala maanaam nga am ci tawféex daal di ñaan rek yàlla nañu sëñ bi gën a ñoddil ci boppam di wax na daal li nga xam si maanaam mooy xasida yi nan ko gën a fonkaat nan ko gën fonkaat ku ci mel ne si ñoom sëtu soñ bu soññee la ci biir ndax moom gis nga nu koy yaatalee ba ci guddoo jima yi ni mu koy defee nga xam ne si maanaam yéeme na lool daal jël tout tànk yëpp nag taf leen si boppam ne leen ñëw leen ñu liggéey Sëriñ Tuubaa ci xasida yi kon maanaam loolu rek ab soññee la ci ne xasida yi mooy lépp te ñoom ñooñu maanaam su leen neexoon man nañ man ci man maanaam ah, man loolu mën nañ leen cee bañ a fekk ndax sëñ bi defal na leen la ñu defal ba pare waaye ngir wane na maanaam xasida yi maanaam bëgg sëñ bi bind ñun moo tax moo waral ñu soññee soññee mel noonu ci ñun maanaam toujours ñu ànd ak ñi liggéey bi ci noonu di ñaanal eh, sëñ eh, sëñ daam ñu ngi lay jéggalu baax ci kàddu yu bari di bég lool ci liggéey bi ngeen def di ñaanal képp koo xam ne si teew nga fi rek yàlla su borom fay aw yiw ñu teew ko at yu bëree bëri bëri di sàkku ci yéen ñaan nag di sàkku ci yéen bu baax ndax xam nañ seen pas-pas waaw di leen ñaanal rek télévision bi moom daa doon télévision boo xam ne si dafa taw féexe loo xam ne si maanaam mbiru sëñ bi rek nga ciy gis di leen ñaanal nag eh, yàlla leen cat seexlu waaw yàlla leen cat seexlu ñu ngi leen di ñaanal ci barka dumba ni saama ilaa sax yi sihaabi xadan wala tarudannahu yaa musa xale yàlla leen sëñ bi féete fépp barke sëñ waa di jégg lu baax ci kàddu yi jërëjëf sëñ daam jërëjëf